maaleykum askan wi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di sunugal 24 point net mbokk yi sunugal 24 point net ni ñu koy safoo di defee saa su ne di seen jotaay xalima bu ñaw mbokk yi xalima bu ñaw bu la gisee cuuraay gi itam xel itam day dellusiwaat ci jëm ju baax bi di Cheikh Sadbou Sow nekkat fii ci diwaanu Cambérène 1 daanaka bu ñëwee ba ci terrain jamono Cheikh Sadbou salaamualeykum. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah baada auzu billahi min acheytaan rajim Eh, bismillahi rahmaani rahim assalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an asi ashaabihi tayyibina tahirin mbokk yi si yàlla ñoo ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel di leen gërëm ci teewaay bi fii macha allah eh, Seydi Mouhamadul Amin Muntaka suñu caméraman bu jàmbaare bi ñoo ngi leen di ziyaar di ziyaar Sunugal 24 ak adduna bi ñuy seetaan yépp macha allah Cheikh Sadbou si waat cuuraay bi nga xam ne saa su ne fu ñu lay fekk doo tàggoog moom mhm. euh, Cheikh Sadbou cuuraay bi moom war nga ñëw waxaat dellu si waat ñi nga mhm. xam ne ñu ngi koy gis saa su ne mhm. saa ne egg see gis muy jolli saa su ne sa waaw alhamdulilah cuuraay dafa nekk loo xamante ni euh, lu ama am solo la ci wàllu ñaan daa iman yaa ngi gis ne turu yàlla yi nga xamante ne ñoo ngi koy liggéey ci wàllu asraar yépp bu ci ne dafay ànd ak cuuraay li nga xamante ni itam mooy sunguf yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee yu ci gën a bëri dafay ànd ak cuuraay te daa iman euh, li nga xamante ne mooy rawxaan dañoo sopp cuuraay dégg nga ba nga xamante ni sax nit ku ne rawxaanam bi mu àndal am na cuuraay boo xamante ne boobu mooy cuuraayam mutlaqan boo xamante ne su ko xamee rek su koy taal ci këram rek daa iman loolu dong mën na mën na mën na nekk ñaan ci moom cuuraay bi nga xamante ne moom la rawxaanam sopp bu ko xamee rek daa iman mën na nekk ñaan ci moom mu am ay xeetu cuuraay yu bëri bii cuuraay bu wute la am na jaawi am na tamit cuuraay bu ñuy wax barxuut am bu ñuy wax bismillah mu am tamit ci sunguf benn garab boo xam ne pël mi ngi ko tuddee kojoli mu am bu ñuy tuddee euh, ñun ci ñu tuddee ko keeleele mu am tamit beneen sunguf boo xamante ne ba léegi euh, mu ngi ci biir cuuraay bi ñun ñu tuddee ko cingóoli nga xam ne loolu yëpp ay garab la yoo xamante ni garab bu bayre la yoo xamante ni pocket la maanaam ci am am pocket la ba pare tam dañ koy liggéey yàlla dafay dàq seytaane day dalay faral ci wàllu noon ak yëpp te itam dalay ubbi euh, topp nag rawxaan bi nga xamante ne moom moo ànd ak yow loolu mooy cuuraay bi nii ñuy taal macha allah ah di ñaan nag yàlla na barke cuuraay bi secret bi yàlla na rot dem ci képp koo xamante ne seetaan nañu fa tabaarakallahu Cheikh Sadbou dañu dem directement ci li nga xam ne moo di wàllu seet seetam mhm. euh, daanaka ku ne pël rek euh, xel dina dem ci wàllu seet ak façon mhm. seet yi nga xam ne yeneen ci yëngu saa su ne mhm. euh, Cheikh Sadbou lu ci bëree bëri ban xeetu seet la nga ëpp looy jëfalanteeg askan fa tabarakallah alhamdulillah Seydi wolof dafa wax ne jinne ëpput xam-xam dafee gën a yàgg pël tam boo gisee xam-xam bi ñuy wax ci wàllu seet ak wàllu yooyu yëpp gën yàgg bi mu fi yàgg moo waral mu am secret yu bari ci wàllu seet seet wute na am na secret yu bëri waaye ñun pël seet bi gën a seet bu ñuy seet mooy ramlu te xam nañ ni moo ñu tuddee ko gisaane ñun boobu moo gën a leer ci xeet bi nga xamante ni ci pël la cosaanu pël la boobu nag da nga doon dem nga sàmmi xar yi réer nga toog di fo di seet nga xam ni xar yi ñu ngi jëm boor bi nga dem toppi ba gis xar yi dégg nga des fois dafay laaj ñun seet pël yi dajee ñi daq seet ñu seet ñu wax ne dafay taw wala yu mel noonu gis nga euh, seet ramlu boobu mm, arab tuddee ko ramlu euh, ñun ñu tuddee ko gisaane boobu la ñuy faral di seet bu fekkee nit ki nga xam ne dafa am aajo rek bu gàtt di seetlu ñu seetal ko ci boobu dana wax sax tur ñi nga xam ne dañu réerle mbir dégg nga ak ñi nga xamante ne dañuy sàkku ci place di xool ndax danañ ci jot wala yu mel noonu dégg nga ñi nga xam ne dañuy ut yoonu tukki di xool ndax dana am wala du am wala sax da nga dafa am benn événement buy xem xew nga bëgg a xam nu muy demee njiitu réew mën nga ci xool loolu nga xool kan mooy jël réew mi ci diggante diw ak diw mën nga ci xool loolu kan mooy daan diggante diw ak din diw nga xam ko football bi kan mooy dóor diggante diw ak diw loolu seet bi ram ramlo lañ koy seete waaye bu fekkee nag nit ki nga xamante ne dafay wut ubbeeku ci boppam ubbeeku dafay aju si biddeewu nit ki mooy biddeewu aadami yotu ak biddeewu yam ci lay aju ak wàllu rawxaanam ci loolu lay aju léegi nag loolu istixaara mooy seet loolu ramlu moom du seet loolu istixaar moom mooy seet ci xeetu istixaar yi nga xam kii rawxaanam nii la tudd tur yàlla bi muy tombeel nii la tudd ci ngay xam sax cuuraay bi nii lay tudd parfum bi nga koy liggéeyal nii lay tudd dégg nga ak euh, ñaata temps lay toog ñaata kii la xalwaam ndax xalwa la ndax riyaada lañ koy defal ndax kii aayaam lañ koy bindal ndax nit ku ne dafa am aaya ndax saaram lañ koy bindal ndax sunguf lañ koy jox loolu istixaar nga koy xamee gis nga Euh, kon macha allah yaakaar naa ni xaw na leer tuuti. ci loolu ma tabaarakallah. Euh, ci wàllu seet boobu sax daanaka mënoon nañ ci def ay jotaay jotaay. Mm-hmm. te liñ ci bëgg mm-hmm. euh, mm-hmm. ñu daal ñëw ci wàllu samp fal doomu aadama waaye tam ginnaaw boo ko falee samp bi. waaw léegi nag nit dina ñëw ñu ñaanal ko fal ko waaye du yàgg ci fi mu toog. waaw fa tabaarakallah alhamdulillah xam nga samp am na si ñaari fànn. am na si wàllu li nga xamante ne jat mooy pël ku ku ko xam-xam ko si wàllu jat ñun am na si jat yoo xamante ne dañ koy def ci guy lañu koy def comme exemple tey xam la amin dafa doon layoog benn waay tey ma yóbbu la ci guy gi ma samp la foofu dafa am lu may jat ma am lu ma ko def ma liggéey ko sa tànk ma samp la ci guy gi soo demee soo demee foofu noonu gis nga ku mën a mënta ñëw sempi guy gi ak loxoom mënta sempi sa kàddu lépp loo wax rek samp nañ ko kon samp am na ci kàddu dégg nga euh, da xëccoo réew ñu samp la ci guy gi ba nga xamante ni yow soo demee daa iman dafay am euh, dafay bëre wala dafay def dafay football ñu samp la équipe bu football dañ koy samp mais dafa am limite kii dañ koy samp juróomi at kii ñeenti at kii ñetti at gis nga dafay am limite ci yenn façon ngi samp yi yaa ngi dégg euh, fal mooy nga jëlee nit ci bërëb yóbbu ko ci bërëb gis nga ba léegi moo sampu daanaka ay ay mbokk lañu dañu jegewoo gis nga waaye fal dafa xaw a moo gën a xaw a yem ndax mën nga fal nit ki nit ki dafay dafay bëgg a nekk maire wala nit ki dafay bëgg dafay bëgg dafay bëgg falu ci benn poste nga ñaanal ko ba mu falu nga fal ko waaye boo ko falee pare nga ci moom sampoo ko kon keneen ku ñëwee rek mën na ko daaneel gis nga mais moo ngoog mën na ko sempi parce que sampoo ko da koo fal rek gis nga waaw loolu moo wutale fal ak samp samp nag dañ lay teg foofu ba pare ñu samp la foofu gis nga daaj ko ba mu dëgër gis nga fa daay ma léegi nag li gën mooy nga samp nit ki ba pare nga fal ko kon daal ginnaaw euh, nit koy samp nga fal ko soo koo xam nga nag li jub ci wax mooy nga fal ko ba pare nga samp ko waaye da koy samp ba pare nga fal ko loolu moom xam-xam la mooy mooy jiitu loolu xam-xam la macha allah waaw waaw fa tabaarakallahu foofu la kaaraange gi ne foofu la kaaraange gi di ne dafay samp nit bu ñu ko sampee maanaam dafa dafa mel ni comme tey xam nga yàlla moo taxawal garab samp ko waaye moo wattu garab gi musal ko ci pexe lawbe ñu baal ma musal ko ci pexe lawbe ndax lawbe daaneel garab ba garab bi mën fa dund nangami at ba sampam jeex léegi nag yàlla dindi muslaay bi nag lawbe ñëw daaneel garab wala ngelaw daaneel ko <laughs> waaw gis nga. kon daal kaaraange mënta ñàkk ci loo mënta gis. waaw fa tabaarakallaahu kaaraange booy seet moom mooy li ëpp solo. ndax boo seetee nit ki di wut ubbeeku dafa am lu ko jot ba mu tëju. moo tax muy wut ubbeeku maanaam àdduna kaaraange moo gën lépp ci àdduna. booy seet parce que kaaraange bu fekkee tey eh, jaamu yàlla bi am na ko. do dala dootu ko dal. gis nga parce que lii la dal yëpp ba ngay ñaanlu wala ngay dem hôpital wala nga yaa xam looy def di wuti pexe loolu soo amoon kaarange loolu du la dal xañ na gis nga kon kaarange moo gën lépp <coughs> ci wàllu kaarange yaa ngi gis lii li nekk fii ci biir fii lii putu euh, noor woon a weertey jolfi kati putu affaire boobu di nekk si dex bi euh, te muy mattaate te ba ñi ngande noor wa waaw jësit waaw lii putu jësit la gis nga yaa ngi gis wëñ yi dafay représenté mbooleem xeet yi ay couleurs yu wute la gis nga day représenté mbooleem xeet yi bambara soose joolaa tubaab nangam seen làmmañ ak seen pexe mënul si yow dara yaa ngi gis ne loolu lu xas mu sex la da jàll put loolu moo gën a am force ci wàllu put ci li yàlla sàkk yépp mooy mooy mooy kii jësit xam nga put bi dafa am fors gis nga force am ci wàllu fii la ko def moo tax fu loolu la ñuy jël def fii yaa ngi gis yii seetu buy gis la ak seetu bu dul gis morso bu ñuul ak morso bu xonk seetu bi seetu bi dul gis ñu ngi ci def morso bu ñuul seetu bi gis ñu def ci morso bu xonk yaa ngi dégg lii mu ngoog seetu yi dafay jëriñ ci loo xamante ne képp koo xamante ne dalay seet pour def la dara yàlla dala koy won ci seetu bi gis képp koo xamante ni tamit mu ngi lay wër eh, képp koo xamante ni aussi mi ngi lay wër di la seet pour def la dara yàlla dala koy nëbbu ci seetu bu lëndam bi moo tax li soo ko defee sa kër maanaam seetu bi seetlu woo sànq ba léegi buy gis bi nii laa ko féetale ah, day jublu ak yéen parce que baaxul gis nga gis nga bii su ma ko defoon nii rek nit mën na indi gàllankoor yu baree bari seetu bi dul gis boobu moom ci ginnaaw rek lay féete boobu mukk doo ko féetale ci kanam boo ko liggéeyalee nit lii pour entreprise yi lay baax wala parce que lii dooleem bu fekkee ki nekk ci kër gi yorul yenn façon biddéew yi ci yenn tolluwaay yi mën na la indil ay tënk-tënk waaw ci sa wàllu am am parce que kaaraange la boo xam ne mm-hmm. dooleem mi ngi tolloog ay entreprise wala nit koo xamante ne kilifa nga euh, ci loolu la tollool waaye nag lii duñ ko defaral xale bu ndaw wala nit koo xamante ne daal nit ku xaw a oyof tuuti la donte jaam nit ku xeebu sax amul. macha allah jërëjëf Cheikh Sadbou Sow mbokk yi di leen fàttali rek seen jotaay xale boobu ñëw fii ci diwaanu. Euh, Cambérène 1 daanaka boo ñëwee ci terrain jamono rek yaa ngi ci euh, diwaanam yaakaar naa dootuñu leen ko présenté mu mel ni rek numéro téléphone bi moo ngi noonu rek affiché ci baaru

dafa am nu ñu koy lig joxee kooku dañu la koy jox rek nga def ko ci bërëb bi léegi yow da ngay génn ci bërëb bi maanaam su fekkee danga nga amee asma mun nga ko taal sa néeg waaye nga génn nga bàyyi ba cuuraay bi wàcc nga ñëwaat foofu gis nga boo ñëwaatee foofu rek yàlla mën na def mu kii dina dugg sa kii dina ñëw ci environnement bi nga nekk ak yu mel noonu daal incha allah jaaro euh, Bathiam euh, boobu bëgg naa ñu dellu si waat fii jaaro Bathiam Cheikh Sadbou mu mel ni kooku koy liggéey te loolu bëgg nañu xam bàccam ndax dafa am ci benn xeet rek bu ko bu ko moom wa euh, ku ci nekk war nga cee wàllu sa kër. waaw fa tabaarakallaahu bàccam euh, bokk na ci secret yi nga xamante ni secret ndono la xam nga am na loo xam ne danga koy jàng hmm. liñ la jàngal mën nga ko jàngal ku ko bëgg a jàng li nga donn nag amoo droit jox ko kenn lu dul de koo donn si yow hmm. loolu secret la boo xamante ne mi ngi ñi ngi ko donnee ci diggante pël ak tëgg waaw xam nga caam moom santu tëgg la bak caam euh, yaakaar naa bu fekkee mos nga ko dégg feneen it ah koo dégg moo wax ko moom soo ko laajee sama deret la ko dégg ci Sénégal mu wax ko rek boo ko laajee man ak moom ay deret lañ euh, te bak caam euh, bete bete moo koy mooy defar kii bi mooy defar jaaro bi jaaro bi bete bete bi di defar nag du boobu ngay jox nit ki boobu dafa am pacte yu ñu defoon suñu maam yi defoon ko boobu dafa am liggéey yooyu liggéey ba sànni ko su ko defee nag euh, ki lay jox jaaro bi nag ci la lay jox jaaro bak caam boobu ngay jox nit ki mu takk ko kon mën nañ la wax ne bak caam du nit moo koy liggéey dafa am am nag loo xamante ne koo xamante ne tëgg la ndey ak baay ku sant caam caam ci ndey caam ci baay moom moo koy liggéey indil la ko dégg nga parce que ñun dañu am ay géwélu ay tëgg juddu yoo xamante ne ñoom ñoo doon tëggal suñu ay maam euh, seeni doom di seeni baay di tëggal suñuy baay seeni doom tey di ñu tëggal ci ñooñu la ñuy jëflanteel ba tey ci wàllu woowu am na nag jaaro yu tudd xaatimu Souleymane mulku Souleymane nangam nangam Yuusuf xaatimu nubuwa yooyu yëpp ñu ngi koy liggéey mën nga dem ci marché bi nit liggéeyal la nga liggéey secret bi jox ko yooyu daa iman dañ koy liggéey mooy jaaro yi ñëpp xam yi gën a siiw dañ xam nañu ko waaye Bab Thiam moom ñun rek ñoo ko yor te keneen ku ko yor suñu famille nga bokk. baax allah Bab Thiam ci wàllu ubbeeku moom moo ci aay. ci wàllu kaaraange itam moom moo ci ay mhm. jaaro la boo xamante ne dafay boole ubbeeku ak kaaraange. yaa ngi dégg de euh, kon euh, bete bete ci ci tëgg ma maanaam ku sant caam ci ndey ak caam ci baay moom mooy tëgg benn jaaro. boo xam ne dana am lu ñu liggéey dugal ko ci biir mu tëgg ko ñu jël jaaro boobu suñ ko jëlee nag yow nit ki bëgg jaaro bi ñun ñooy ànd ak yow bu dee ci réew mi nga ne bu fekkee nekkoo ci réew mi bitim réew nga nekk yow yaa ñuy booleel ak nit ñu ànd ak moom ba mu taxaw def ñaan yi nga xamante ne moom lay def ñu jox ko jaaro bi jinne jox la jaaro bi nga gisal ko sa bopp wallahi azim jinne moo lay jox jaaro bi nga gisal ko sa bopp loolu mooy bak caam waaw loolu mooy loolu mooy bak caam dangay taxaw nga gisal sa bopp jinne jox la jaaro bi waaw loolu mooy bak caam kooku moom amatuñ li nga xam xamante dañ ciy werante tey tey yaakaar naa leeral boobu am na solo daanaka waxtu bi dam nañu mhm. mais euh, ñu ñëw ci wàllu cengat tuuti rek buñ ci may ci simili mhm. ndax waxtu bi mhm. daanaka euh, dam nañu ci wàllu cengat cengat bi nga xam ni day dox ñu faral la ci dégg lu bare bare ngay joxe ay cengat euh, Cheikh Sadou Sow ci lu ci demee ni cengat moo xam dañu liggéey dafa nekk yow def def moo xam dañ laa sànni li nga xam ne moo di korte lu demee ni ni mel mhm. cénki euh, Cheikh euh, cangat yooyu ndax ci ab jamono euh, loolu dañ koy waayal doomu aadama bi way laatam saa soo ñëwee rek fekk nga cangat gi noppi waaw fa tabaarakallahu yaa ngi dellu ci li nga laajoon sànq mooy kaaraange gis nga wàll yooyu def ci am loo xam ne nit ki bu ko juddoo benn yoon lañ ko koy sang ci àddunaam yenn xeeti càngat la yoo xam ne dañ koy def ci kër gi benn yoon la ko nit di sangoo ci àddunaam dégg nga yooyu dana la mutal musal ci liggéey ci bët ci làmmañ ci kort ak ci cénki waaye ma waxaat beneen yoon ni kort képp ku mu dal kenn mënu la faj maa ngi dégg ba léegi nit ñi di wax ne damay faj kortu damay faj lii corte kenn mënu ko faj gis nga kortu moom amul kenn koo xam ne mën nga ko faj bu la dalee rek dangay ngay gis nga parce que kortu mook cénki ñoo xaw a waaye kortu moo gën a gaaw mm-hmm. tey kortu bu dalee nit ki du def ak moom quinze minutes déedéet du def 15 minutes léegi nag lu dul def 15 minutes korte bu dalee nit ki léegi balaa ngay yegg hôpital mu de waaw bala dafa mel ni dafa mel ni comme arrêt oh. cardiaque mooy loolu di dal jour yi rek ñu tëdd dee loolu la noonu la gaawee moo noonu la gaawe dafa am xeet yu ñu koy liggéeyee ay xeet la yoo xamante ne dañ la koy sànni bu ñu la ko sànnee rek ci sa yaram benn partie day mel ni eh, melantaan moo la màtt foofu da ngay jikk rek nga paralyse jeex na foofu la yem cinki nag moom Euh, dafa am beneen beneen dafa am lu ñu lay sànni day dugg ci yow di ko gis muy dox waaye bu defee ñetti fan rek pare nga ci voilà loolu mooy yu ñuy liggéeyee dugub suuna yi ak yu yu yu mel noonu daal dégg nga liggéey la bu ñu koy defee yooyu dégg nga waaw wante nag nit ki mën na def kaaraange boo xam ne dana ko musal ci wàllu kort wàllu cinki mhm. wàllu yu mel noonu euh, ak euh, wàllu catak ak làmmiñ ak yu mel noonu daal incha allah Mhm. Euh, liggéey liggéey yu mhm. mhm. la ñuy tëjee waaw alhamdulillah euh, ngóor wax dëgg yàlla nekk na ci loo xamante ni lu jaaxal jamono ji tey la sonal na nit ñëpp ci ak yi ko waral yu baree bari euh, waxtu wi du maye ñu dugg ci waaye daa iman am na différence yu ci am am na ñoo xamante ne dañoo amul doole amuñu kàttan am na ñoo xamante ne ñoom ngóora gi ci boppam lañ amul waaw am na ñoo xam ne am nañ ngóora waaye kattan gi lañ amul am ñoo xam ne nag xëy na seen awra ni mu toll euh, bugguñu ko maanaam choisir yàqul dara nag wax dëgg yàlla yàqul dara awra bu gàtt yàqul dara parce que li muy njëriñ ba muy joxe nekkul ci gàtt gi wala yu mel noonu mais tam yokku macha allah dañ ciy yëngu képp ku bëgg ñu yokkal ko loolu mën na nekk Euh, képp koo xamante ni itam ci wàllu nuñ koy waxee ni ci ci wàllu néew kàttan bi la ba léegi lu yokk kattan aussi dañu koy liggéey euh, ki nga xamante ne amul dara dara dara itam euh, su fekkee judduwaale wut ko mën nañ ko liggéey judduwaale bi itam am na ci yoo xam ne mën nañ ko liggéey parce que nit mën na judduwaale néew kattan fekk liggéey la waaw parce que dafa am ay xeetu def-def yoo xamante ne danañ topp nit ki def ko parce que am na ay xeex comme nit ki ba mu doon sëy si si kër gi da affaire bi dafa amoon xeex dégg nga ñu xeex ko xeex koo xeex ba ñu sànni ko ay affaire mën na ko def muy feebar dégg nga mën na ko def lu mu jur mu dellu mën na ko def bu juree ay doom doom yi ci boppam di am ay feebar di am ay gàllankoor gis nga kon loolu mën na topp doom bi yàq ngóoraam ba mu am problème am na ñu ñoo xam ne tey sëyuñu euh, sëyuñu de xam nga lan la dañ leen yàq depuis seen yaay ba muy ñëw ci kër gi boobu lañ leen yàqool ci loolu wallahi loolu am na euh, ñaan moo xaw a doy waar macha allah. c'est euh, xanaa di ñaan yàlla na yàlla def jàmm si réew mi élection yi nga xamante ne moom la ñu jublu yàlla nañ si yàlla yóbbu si jàmm génnee ñu ci si jàmm. te di ñaax nit ñi tam ci ñu góorgóorlu jaamu yàlla ragal seen borom te xam ne dara jarul dara lépp loo def pour dara ba jot loolu rek nga xam ne jaru ko woon boo saagaa nit ki ndax yu jot réew mi wala nga yàq deru nit ki ndax jot réew mi bis boo jotee réew mi nga xam ne àdduna la jarut ko di nga rëccu lépp kon yàlla nañ yàlla musal ci loo xamante ne dañ koy def ëllëg ñu ciy rëccu képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan ñu ngi lay ñaanal li nga xamante ne moom mooy sa tawat bu fekkee àndut ak mooy yàlla yàlla na suñu borom saafaral la ko yéen tamit yéen xam li ngeen bëgg yàlla na suñu borom defal leen ko ci zahir ak ci baatin wa ma tawfiqi illa billah euh, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamtun wa sala assalaatu wa salaamu ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin macha allah Cheikh Sadibou Sow mbokk yaakaar naa dootu ñu leen ko présenté tey macha allah ci wàllu xam-xam bu rafet gi leen mbokk yi rek ñu fekk si waatal ko fii ci résidence bi nga xam ne fii la nekk macha allah ñu yàgg itam di ko fi fekk muy Cambérène 1 daanaka boo ñëwee ba ci terrain jamono. Euh, Cheikh Saad bu Sow euh, xam-xamam màcc macha allah ci wàllu asrar tam ci wàllu ñaan yàlla di jëflante askan wi waaye itam ci wàllu faj yi di ko bu baax mbokk di ñaan rek allah gudd subhanahu wa taala doole guddal fanam lool di ko ci defal ndam bi caméra bi montage bi Mamadou war lay fatigable di ko beral ci ngërëm ci wàllu réalisation bi Serigne Aliou Top ci wàllu présentation bi seen jotaay xalima bu ñëw fii ci diwaanu Cambérène 1 ngeen ci doon ànd ak seen mbokk taalib Mouhamadou Lamine Mountakha yàlla mi borom jàmm tey ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi doole bi defal jàmm ñu wax salaamu aleykum wa taala wa barakatu